maaleykum suñu mbokk internet sans limite ñu ngi leen di nuyu di leen ziar boo leen ñu gisee nii ngeen xam ne ñu ngi fii nii ci Sénélec euh, euh, bu Mariste euh, ci vidéo yi boo leen xoolee bu baax di ngeen gis ne ñu ngi ci lieu yi ya nga xam ni moom lañ doon dóoree agresseur boobu noonu doon agressé benn femme Euh, doon toppoon ko nag euh, depuis ci banque bi ba mu ko toppee ci banque bi si la ñëwee yéeg si otoom doon ko jéem a agressé après ba femme bi génnee nag si la jëlee oto bi doon daw ñi fekkee woon affaire bi doon nañ topp waa ji ba far jàpp ko mu ñëw daw dugg ci biir Sénélec bi si lañ ko jàppee dóor ko ba mu gaañu gaañu gaañu yu metti ba tax na tey dañoo ñëw ak yéen fii si Mariste pour laajte ñi fi dëkk nañ lañ gisee lu doy waar loolu parce que gis nañ ne daan na am ci yeneen secteurs yi mais pas fii Thiom danga may topp ma dugg si biir gars yi ñu wax man lan lañu gisee affaire bu grave boobu. sëñ bi nuyu nañ la. fay naa leen. tur bi nan la. Basirou Faye. Euh, Bachirou fay gis nañ ne euh, temps yi insécurité bi am ci dëkk bi. Mhm. dafa xaw a doy waa yow nan nga ko gisee. waaw xaw na bëri moom bari na trop eh, mais eh, boo demb demb rek moo ci mujj fii eh, dafa am benn waaj yoo xam ne dafa toppe woon benn femme fale mais ci banque boobu noonu côté dex gi noonu mais yaakaar naa laata ñu ngi ciy dal ñu ngi ñëw ci lekk bi fii nii mais loolu lépp problème mu sécurité la rek et puis te aussi nit yi ñuy xoolaat bu baax euh, comme euh, ñuy war di génnee comme ni ma la mën a waxee bango ñuy def formation yow bango ba pare xam lépp xam ni ñuy reye nit xam yaatu ba pare di sommaire kooku it day suyee ci agression bi gën a bari donc loolu laa ci amoon lu may wax euh, ok en tout cas loolu daal nañ koo gëstuwaat bu baax waa côté boobu ndax aussi te Euh, booy xool euh, ñu bari demoon nañ bangoo ñëw mais en fait da ciy xool koo xam ne mérito na def na lépp def na formation mais li yàlla xam doy na du am lu mu def day sommaire te xam nga nit nit rek la mën a doon aussi am na foo xam ne boo fa sonee boo sonee rek xam leen lii wala nga mën ko boo gëmul yàlla trop di nga def naka su dul loolu yokk na agression bi Euh, et puis ci yenee xele yi am na ñoo xam ne aussi dañuy bëgg teranga te duñ nangoo sonn loolu lépp dafa suyee ci biir soo bëggee teranga te nanguwoo sonn il nga am loo def loolu daal laa ci gis. ñu ngi si jàmm bu baax tur bi nan la. Ahmadou Diallo. Euh, papa ji gis nañ ne euh, temps yi dëkk bi dafa xaw a tàng trop ba démb ni gisoon nañ benn agresseur bu ñu doon dóor fii ba jot kaa gaañ nan nga gisee dëkk bi ak agression yi léegi. dafa metti de dafa metti man lu ma gis dafa metti dañu war a def kii <coughs> sécurité normal ñu war a def ramasse guddi normal man loolu laa gis. man Moussa laa laa tudd. Euh, Moussa dañoo doxantu woon fii si Mariste euh, pour laajte la nan nga gisee démb jotoon a xew fële ne agresseur bi ñu dóoroon ba jot kaa gaañ. waaw léegi nag eh, jamono bi fu mu toll léegi ci agri eh, agri eh, ci affaire waaw fu mu toll léegi mhm. ah, dafa doy waar de dafa doy waar il faut léegi gars ñu ñu yokk ay garde yi waaw ñu fay garde yi fay bu baax mhm. waaw ñu garde garde bu baax pour agar eh, waaw ay waaw ci ay boobu léegi nag gars yi war na parce que li ma gisee démb su garde suñu amul suñu amul garde gars yi dañu def bu bu bon sax parce que gars yi dañu bugg a sàcc léegi xam nga léegi eh, tabaski mu ngi ñëwee mm. waaw il faut léegi gars yi ñu yokk garde mais gisoon nañ ne euh, yooyu da doon gën a fréquent ci yeneen secteurs yi mais pas mariste. waaw man mi ngay gisee di wax ak yéen mari fii am naa fi eh, vingt cinq ans max mille neuf cent et quelque laa fi ñëw eh, man bi ma fi ñëw benn kër presque laa fi fekk ah, boo mosaa jógee yaraax taxaw fale yaa ngi seen oto yi jóge autoroute di dem à village mais man yàgg naa fi trop eh, booy xool ñu bari fii lañ ma fekk xam nañ ma fi trop borom kër yi fi nekk ñëpp ñëpp ma xam mais loolu lim fi daan am bariwut parce que li fi am dem nii non mosuma ko fee gis ndax daaw jeg am na sàcc yuñ fi jotoon door côté bale na le mais ñooñu dañoo kefoon porto eh, benn kalpe jaambur man maa tollu woon fale sa toog ci posto bi di leen seen ci lañ leen jàpp noonu mais lii am fii moom man am naa fi vingt ans xel yu bari fii lañ doo sama kanam li may wax ni waa Maris buñ ma gisee dinañ xam ne bas mi yàgg na fi ku fi xam la mais lii am fii dem moom non bariwul lim fi am mais léegi gis naa ni ñu ngi fiy dugg si xaw ma nu fa demee noonu mais en tout cas mu ngi fiy bëgg a bari mais mosul bari Maris moom ci baal yooyu lañ ko doon dégg ak affaire yi yeneen baal yooyu fi jege géej beek wala yeneen mais fii moom. fii moom bëriwul moo su fee bëri. gisoon nañ ne démb agression bi jotoon a am bëccëg bi la xewee. Ah, booy bëccëg yi am na bu mus nanu topp fii benn waaj dakaar benn indien dakaar ba côté pom bi fale waaye bu mu wàccee jël ba borom moto bi ñëw laa tànk bi mu daan jël xëcc saaku bi daw dem mm. moom banque lañu ko siibee ba ba topp mm. ba ñu jël xaalis bi yéen euh, fii nii si Maristes doon ngeen gis genre yooyu noonu. wala man mën naa maris fii maa ngi dëkk fii mais su ma xëyee matin may wàcc euh, ay dix heures vingt heures ma duggee du ma génn xanaa ma fekk ma toogu fii maa ngi dëkk fii. Mhm. ah léegi nag li ma war a euh, wax léegi pour sénégalais yi zéro heure. avant zéro heure mu jot ñu ñu dem ñu tëdd ñu nelaw waaye suñu euh, zéro heure soo soo jotee ñu génne ñu ngi dog ci mbedd yi te léegi fu mu jamono bi fu mu tollu léegi wóorul xam nga loolu baaxul zéro heure suñu jotee rek ñu dem ñu tëdd suñu kër yi ñu fanaan foofu man de noonu laa gisee. Euh, nan ngay wax jeune jeune jeune jeune yi lii yan conseil nga leen di jox. jeunes yi waaye maanaam mooy maanaam xam nga muñ di yokk seen muñ yokk seen njàmbaar liggéey teñ war a xam ne lépp lu am rek suñ boroom la lépp lu am suñ boroom la ndax li nga jóge nii ki nga jóge nii kar ko ci mbet bi di nangu lim yor de koo liggéey boo ñëw kon donc waral def ni moom te booy xool agression ñi ñuy en général ñi ñuy kar du doon sax góor seen moroomu góor jigéen lay doon loolu njëkk a ruslu car sa moroomu même ba mu fekkoon sa moroomu góor la sax dafa ruslu waxatuma jigéen li ma ci gis daal mooy liggéeyi bañ a xeeb aussi ci li may ñaax ci ñi ma ko war a wax formation bangoo comme li ma la wax da ngay jël xale bu ndaw yóbbu ko bangoo mu ñëw ñu xam ni ñuy reyee nit xam li ñuy def xam lépp nga ñëw sànni ko ci biti du am dara bu xëyee du mën a am lu mu ndekkee sax nit nit kese la bu yàggee day am fu xelam dem te mën naa am bu ko defee day réussir loolu it foog ñu toppatoo ko mais nag muñ moom muñ moom ci la xam ne lu jot rek dana yokk mais am na loo xam ne boo ko bëggee taxañ mën na la indil yeneen problème loolu rek laa ci ma ñaan jeune sénégalais yi góor góor def lu baax bàyyil euh, agression bi bàyyil lu bi góor góor liggéey am loolu gis ah man de léegi agriculture léegi kaddu lu mu yore moom man kaddu bi moom baaxul li ma li waaw li ma a wax kaddu bi moom daa ñaaw nit moom nit moom warul euh, warul euh, rey nit bo daal. <laughs> merci beaucoup. <laughs> ok merci. li ñor l'essentiel wax nga ko. Ah, <laughs> merci kontaan nañ. ok merci.